الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن إن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله ينال بحمد ينال بحمده الثواب نحمده على جميع آلائه وهو الكريم الوهاب ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عليه توكلنا وإليه متاب ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله جاء بالحكمة وفصل الخطاب صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله والأصحاب والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا إلى يوم المآب أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين إن من نعم الله تعالى علينا ما فضل الله به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وخصه به من فضائل ومعجزات من فضائل ومعجزات ومن تلك الفضائل والمعجزات الإسراء والمعراج وقد جاءت هذه الحادثة الهامة والخطيرة في آخر مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة بكر لي من سنتي الله سبحانه وتعالى moom mi nga xam ni sant ko day taxa am yoon di ko sant ci xéewal yu rëy yu tedd yi mu ñu defal di seede ni mu benn buur bi yooyu jàng ci moom subhanahu wa taala la dong bu kaari ñëru ci moom la ñuy wékku waaye ci moom la ñuy dellu di seede ni ñu sang Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak jaamam la di ndawal moom mi nga xam ni moo ñu indil ak waar ak xelante ak wax ju jub wax ju xam ne tàqale dëgg ak neen di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu dotti ci moom xéewal ak mucc ak barke waaye def ko ci njabootam bu làgg ak alinam yu baax ya ak képp ku jaar ci seen sànq service ba ci yàlla ci yàlla boole ginnaaw loolu mbokk jullit yi ñuy dénk suñu bopp di leen dénk ragal yàlla subhanahu wa taala borom bi subhanahu wa taala ñu wax ci alquran bi ay yéen gaa ñu gëm yàlla ragal leen yàlla ci jullit ji ragal te bu leen faat mu lu dafa fekk ngeen di way wommal te seen tànk bu ko yàlla bëgg mbokk jullit yi bokk na ci xéewal yi ñu yàlla xéewal yi jullit ñi ci xeet yi jàll Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci xéewal yi ñu yàlla xéewal yi nga nee ji mu jox suñu sang Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jagleel ko ko ak kéemtaan yi nga xamante ni jagleel na ko daa bokk ci ngëneel yooyu ak kéemtaan yooyu dañuy xéewal bu leen ci ñun xeet yi doxu guddi gi yàlla jox doxal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam riñaane ko ko mu bëccu asamaan yi wuy borom soxna ci kaw asamaan jël si waat genn guddi muy kéemtaan ak ngëneel yoo xam ni bokk na ci yàlla jël defal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tamit xéewal yu rëy rëy ci jàmm ci jàmm voyage bi nocturne boobu doxu guddi boobu ak yéeg gi ñu yéeg asamaan nekkoon ci jamono ji mu udd ji mu def mag xam nga sallallahu alayhi wa sallam ñu ko yàlla ñu ne jubluwuti gi ñu ngi diire ñaar ci at ak ñett waaye da ci am période boo xam ne mag la ko passé am période boo xam ne ci la gàddaay di mën li ñaan bi ñu yàlla la ñaan yoon ci sallallahu alayhi wa sallam dafa nekk ci période bi ñu nekk màgg ci mujj période ci lay ñaan di ñaan di amee ci lay ñaan di amee ñenn ñi ngi ci fukkeelu fan fukkeelu at bi la ñenn ñi fukkeelu at bi ak benn ndax fukki at ak ñett si la def màgg dem yonent biñ ko daay dem màgg dafa fukki at yonent bi duré ñaar fukki at ak ñett ci mujjub jamono bi ñu nekk màgg mëjël màgg ak mu tarama ci lay di ñaan di amee waaye mbokk yi daal daa ñu dugg ci ñaan bi dafa am ay xew-xew yu ko jiitu yoo xam ni dañuy dimbali dëgg dëgg dëgg ñu xam lan mooy solo ci ñaan bi ak itam lan la jural yonent bi saa sallam ak diine ji ba tey tax mooy si xam nga ni sallallahu alayhi wa sallam bi ko yàlla yónnee màkk ndax fekkoon waa màkk di jàmm ay xër yàlla yónni ko ñu jox ko ndigalu dañuy jaamu yàlla dong bañ ko bokkaale daal loolu war na ak ay aaya ak maama mu ñu war a déglu loolu jural woote bi te tàmbalikaay bi ay jafe-jafe yu bare la waaye comme sallallahu alayhi wa sallam kilifay màkk ñoo ko mel ni moo tax mënul ko lu bari rawatina muy doon ab yonent ki nekkoon kilifa màkk jiite màkk muy Abu Taalib bokk ak bàyyi yonent bi Abdullah ndey ak baay nekkoon kilifa màkk joxoon ko garanti ko fii baa ngi dund kenn du la kenn du la waaye jamono bii li ñaan gi di am lu ko jiitu ci lu néew dafa ci la am amul maali faati nga xam daal amoon na kon wéeru waayam ci liggéey bi ci war bi doon war tool yàlla yàlla ba mag wéeru waay boobu mu daan Xadija di soxla si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu yaay Xadija xam ni daanaka moom moo nekkoon conseil technique nekkoon ci ku daan dëgër lu ko def lu ci biti bu ñëwee ci kër gi rek suñu yaay Xadija du ko dalal dalal boo xam ni lu mu dumoon ci coono ak ci lor ci biti da koy daal di màcc suñu yaay Xadija moomu ak Abu Daal bi ñëpp mën a yor léegi nag mu nekk nit ku nekk ci biir màkk amul benn wéeruwaay ci biir màkk waa Màkka bi nag kilifay Màkka bi comme duñ ko woon musal jugee def dañuy taxaw nag nga xam moom te ci kalaama lañ ko ay ñooy nag moom ñuy ji mun leen bàyyi jàpp bu ko kenn nag bi mu baaxoo nag ñu ne nag comme comme fi ñu ko doon musal jugee nag faaw dina dakkal li loolu jël mu metti lool ci moom ba mënul la am pexe mu génn Màkka dem fan guddi faaw bu ñu demee Paris wax ak kilifa yi Paris fii ñoom ñëpp ñu jàpp yam lu si jàppale ko ndax daa defoon ko ko fat jàppale ko ci woote bi ko yàlla yóbbu war xaar yi non seulement kilifa yi nangul mais dañ ko boole gàllo yeeg jaam ñaar waykate yi xel ñi leen na jël dëkk bi bu koy sànni ay xeer di ko lor ba tànkam yi dàllam yi def dell ak der ndax xeer yi ko doon sànni ba ñu doon jël dëkk ak dañ ànd ak nit ñu xaay sata nga xam ne ak boneem la woon ànd na moom ñu koy sànni ay xeer bu jël taay ba lakk ci benn lakk boo xam ne ñaari kilifa yi màkk ñoo ko ko ñu jabal seen surga ñu ko def seen ngeen jox ko ci rañaan bu mu lekk mu jox ko ci bëre sax mu lekk waaye ñaan ñaanam bu rëy bi delluwaat ngir yëpp ci yàlla ñu ko yàlla lépp xam naa ne fi yëpp gënoo ma rek man aw ma toll ma am nañ mus ko sa mel wax ci sama kaw delluwaat ko fu mu yàgg bi muy dellu si waat màkk ñëw ko ci benn course pour yi ci màkk ànd ak bëre boobu ànd zëy bi xaarisa ñu ko demal màkk yore ma ci kilifa diw mu lànk ma parce que am na ñu am pouvoir mu mën a yàq kuñ lànk te mbut la laal mu yabal ko ci ay kilifa demal ci diw bu nangul nga dem ci diw bu nangul nga dem ci diw mu dem ba ci ñeenteelu kilifa ci ko mu moo lànk bi almusaayim mu daal di fay ñu ko na ñëw mu lànk diggante boobu nag mu ngi ci aw xur bu nekk ci wetu màkk diggante màkk ak ay ñetti kilomètre wala nekkoon laata mooy ñëw ci xur woowu jibril wàcc na ànd ak malaaka bi yàlla dégg doj bi ñu ko yàlla yónni am ànd ak malaaka bi yor doj bi nee na moo bëggee ñu joxe ndigal ñaari montagne yi séq màkk ma dajale leen màkk ak taani baax mu ne ko mukk amaan na yàlla génn ci seeni ndigg ñu koy jàppale di communauté amaan na ëllëg yu jur ñu koy jaamoo communauté ñoom ñoom ñoom ñoom ñu bañ lii di beneen degré beneen dayo ci màggu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci mën a tolore waaye mën a jéggal mën a baal mën a nangu ay bi kane même bu ngeen déggoowul ay classe ci xur woowu mu toog ay fan ci lañ ñaari la guddi mboolam jinne yi ñëw di déglu alxuraan ci ñuy jàng guddi yëngu ci dara ginnaaw bi la yàlla wàcc alxuraan karim wa waxna ilayka nafara min aljinni yattabi'una alqur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma falamma falamma qudiya wallaw ila qawmihim munzirin yàlla nee na participul ba ay jinne ñëwee teew di déglu alquran bi ngay jàng bi ngay naan ba guddi ba nga jàngee alquran boo pare ci la ñu wëlbatiku delluwaat ci seen njaboot ci seen seen xeet yaa qawmana inna samina kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi min alhaqqi ila siratin mustaqim tey yéen sama nit dinañ dem waare ji seen mbokk jinne di leen dégg nañu téere bu ñu wàccee ginnaaw yam ci yàlla Moussa alayhi salaam téere wax ne day bindee jëme ci jub bindee ci yoon bu yoon bu jub ñooñu kon ñooñu alquran nag wax na ay ay yoon taxawaayu jinne yi ni mu gën a rafetee taxawaayu nit ñi ci woote bi yàlla yi ñu seen Moussa saa sa ak Ahmad wàcce bu daan jàng ko bi ay aayaay rabbikumaa tukazzibaan ñëw na ay yoon ci suuf rahman lan ci aaya yéen borom yi ngeen yéen yéen dëgg ne dafay jàng saxaaba yi mu daal mu ni saxaaba yi yéen tey seen mbokk jinne yi ñoo leen gën a rafet lu ñu toll ndax saa su ko jàngee aaya bi yéen ñu ne laa bi shay'in min aayaatika rabbanaa nukazzib wa lakal hamd ñu ne amul dara ci sa aaya yi lu ñuy weddi yow suñu borom te cant yëpp yow la ñeel loolu la jinne yi daan toll kon jinne yi seen taxawaay yàgg naa rek ci wàllu dencaay bi saa kon déglu bi mu déglu bi yàlla dencal jinne yi woote ci bañ tuub yàlla jox ko avance boobu loolu nekk benn ndigal laay bi commencé jox naa forme boobu jox xam nga ni kat bu nit ñi bañee jinne yi nangu nañ te jinne yi yëpp ñu pouvoir kàttan waaye jox ko beneen garanti mooy balaa tamit wàcc jigéen ñi wàcc ànd ak malaaka bi yàlla dégg montaane bi ko mooy nangu rek ñuy maasale ñaari dëkk yi ñu ra Makka ak Taif kon yooyu dafay jaaram yoo xam ne suñu borom topp ko mu ñibbi si dañ ko laqee mu ñibbi si Makka duggaat Makka mu tëdd ci benn yoon di nelaw Jibril dikkal ko alayhi salaam Jibril mooy malaaka mu yàlla wàcc yóbbu ci yonent yi ñu indi wax yi révélation Jibril ñëw jël sang bi sallallahu alayhi wa sallam xool ci dënn bi génn xol bi wut ndax ndaw la wuus def ci ndoxum zamzam raxase ko xol bi ba mu set wicc mu dugalaat ko testé waat ko ni ko sa borom moo ni naa la indi sa borom moo ni naa la indi loolee nag la la la xol ko soxla woon ak yenn ko ci xol bi ba taxoon mënul woon a yéeg loolu jibi la xasal set ngir mën a teg borom subhanahu wa taala ndax xol bu sell mooy taxaw ci kanam borom subhanahu wa taala xol bu sell mooy moom la yàlla yi recevoir sallallahu alayhi wa sallam jibril ànd ak daaba warwaay woo xam ni moo sut mbaam ci taxawaay waaye tollu ñu fas di ko wax na du ràpp warwaay woo xam ne ci gaawaayam fu pëtëmu yàgg ci tànkam yàgg ci gaawaayam mu waral ko ci almuraad ñu dem baytul maqdis Palestine jàkka ñoo jumaa ñoo ci nekk Palestine te yahudi teg seen loxo jumaa jooju la ko lañu def ci guddi loo xam ni moo waral ginéem daan ca dem ndoxu weer lay dox yóbbu ko baytul maqdis yàlla teewal ko yonent yëpp yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jiite leen ci jàkka ji mu door a koy riñaane ñu doon ko asamaan ni mu ko jëlee ci bërëb bu barkeel inna awwala baytin wudi'a linnaasi lallazii bi Bakkata mubaarakan muy bërëb bu barkeel muy jàkka moo jëlee Kaaba jaarale ko ci bërëb bu barkeel muy Baytul Maqdis سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله jàkk da nga xam yàlla ne dama barkeel la ko wër yonent yëpp jaar moo tax sallallahu alayhi wa sallam yàlla jaar la ko foofu mu jiite ma yonent yëpp loola lañ sabab mooy baytul maqdis mooy la kon penku penku yonent yëpp yi gis ñu jàmm foofu lañ daan féete bu ñuy julli nga xool aussi voyage bi relation voyage ak julli picc bi voyage bi ak julli ci penku yeneen yi jiitu woon lañ ko jëkk jaaral mu jiite leen fa góor yi yéeg lu tax mu jiite leen wala ni kat yéen ñii ci ginnaaw ñëpp fii moom moo seen seen seen seen seen penk seen xibla waaye xibla bi tam dina tuxoo ci ci ci fii dem ci fële mu liggéey mu mën di doxalaat ndax ginnaaw ñu gàddaay rek ay seize mois lañ def yàlla moo ñu ci def temp yi léegi nag temp bi nekk màkk dañuy nekk ba ci màkk ndax dañuy door islam door waat temp bay du màkk loolu ndax mos a nekk temp yonent yi alayhi salaatu wasalaam jibril yéege ko ànd ak moom yéeg asamaan ci invitation suñu borom subhanahu wa taala mu yéeg ba ci asamaan bi tiim àdduna bi asamaan bu jëkk juróom-ñaari asamaan moom bopp yi bi mu dem ba ñu tiim àdduna jibril tëgg bu taa jibril ku kett la ci malaaka yi ku ñu topp ndigalam mu baaxee damma amin waaye teewul suñu borom dafa am ay mbindeef am ay ay soppaam am ay programme yoo xam ne bu nekk ña ko dénk xool lu leen yàlla dénk mala asamaan su nekk dafa am malaaka yu koy gàll jibril bi ñu am am pouvoir ba mu ñëwee dafa bëgg xaar ndigal kooku kan la mu ni man la jibril ndax da ngaa ànd ak kenn mu ni ko wax koo àndal mu ni ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñooñu ni ko ndax dañ koo yónni ñoom seen nit ñi nekkul ci dara ñu xew mais seen nit ñi ngi leen yàlla dégg ndax ku yónni la mu leen waaw ku yónni ñu ni ko kon ne yegg ak jàmm ak dal ak jàmm mu dugg ci tekk fa suñu maam Adama alayhi salaam suñu maam Adama daal di koy nuyu تكدم دارك أهلا بالابن الصالح والنبي الصالح بل الدم دون باح بسلج جنون بباح بسلج jibril yéegaatal ko ba ci ñaareelu asamaan mu jaar am jaaral fëgg ko talla ñu laaj ko laaj mu tontuwaat mu ubbil ko mu fekk fa yonent yàlla Isa alayhi salaam ak doomu di yàlla doomu bàjjanam ja yonent yàlla Yaxya ñoom ñaar la fekk ci ñaareelu asamaan ñu dalal ko marhaban bil axi saalih wa nabi saalih rakk yu baax yonent bu baax dalal ak jàmm ñu dalal ko mu yëg ci ñetteelu asamaan fekk fa yonent yàlla Idris alayhi salaam dem asafulla yonent yàlla Yuusuf alayhi salaam mu dalal ko salaa sallam nee na ba ma ko nee jàkk gis naa ni taar ci àdduna buñ ko xaajal benn xaaj moom lañ jox yonent yàlla Yuusuf benn xaaj bi sëñ ko def ci taar mu dalal ko jaar moom ba yëg ñu jiitu woon jaar ko mu jël foofu yéeg ñeenteelu asamaan fekk yonent Yàlla Idris alayhi salaam mu dalal ko jaar ak moom fa ñeent jaar juróom-benn asamaan fekk yonent Yàlla Haaruna alayhi salaam juróom-benn asamaan fekk yonent Yàlla Moussa alayhi salaam juróom-ñaareelu asamaan fekk fa maam Ibrahima alayhi salaam mu ni ko ahlan marhaban bil ibni salih wal nabi salih wax ko ni ko aadama waxoon aadama ci yoon saa moom saa ci doomi aadama yi la bokk waaye bu ñëwee ci Ibrahima moom itam da ko di dalal jàmm doom ju baax yonent bu baax ndax doomam ndax Ismaïl alayhi salaam bi xam yonent Ibrahima ko jur moom moo meñ yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ibrahima dalal ko dañu ko boo demee nuyul ma saw xeet iqra afriq ummataka minni salaam boo demee nuyul ma saw xeet yéen maa ngi nuyu di la ñaanal jàmm وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها في عام وغير وأن غيرها سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ودبيل من توحيد تيا خمل لني أجل دي سوف سوف نم سوتيلا waaye ndox mu neex mu teey moo fa nekk waaye xamal leen ni suuf soosee ak ndox moo mel ñëpp dañ koy jëmbat ñu wax nga xiyaan xamal leen ni àjjana pàcc la pàcc bu amul dara pàcc loolu amul dara mu ne waaye ñëppat dañ koy jëmbat nag mooy subhanallah alhamdulilah wa la ilaha illa allah li mooy jëmmatu àjjana ñu taal baa ne boo demee xamal sama xel ni lii mooy jëmmatu àjjana suuf su nangu la nag ndox mu ndox mu ndox mu neex a nekk waaye ak pàcc la te jëmbat la mooy subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa huwa allah mbokk yi lii mooy jëmbatu aljanna kon lu lu soxla yàlla du bokk bari nee na ñuy fekk magrahim wéeru ci baytul maamur baytul maamur mooy kaabat waa asama ni kaabatullahi musharrafa daal bi ci màkk ni mu mel ci waa suuf nga xam ni ñoo ñoo ñoo koy wër saa su nekk di ko jaamoo yàlla baytul maamur néeg la bu nekk ci juróom-ñaareelu asamaan waa asamaan ñoo koy ñoo koy wër di ko jaamoo yàlla. yéen sax yéen saa sax nee na baytul maamur bis bu jot juróom-ñaar ci junniy malaaka soixante dix mille malaaka dinañ ko day ko dugg war ko te nee na amul benn malaaka moom mu koy dugg ñaar ba ab dëkk ku ne benn la koy dugg te amul benn malaat koy dugg ñaar la te bés bu jot juróom-ñaar fukki junni malaat la soixante dix mille malaat wa maa yaalamu junuuda rabbika illa su borom mu ni samay soldat kenn xamul lu toll kon bu waa suuf di may yàlla waa asamaan yi dox ko yàlla soxla te asamaan amul may yàlla asamaan amul mooy yàlla da ngay dugg ci bol bol avion mu dem ba benn altitude ñëpp ni selam ma ne sama dend da ca buum yi ak mooy yàlla aw suuf la xam looñu gën a sori kaw asamaan rek muy gën a ratu ngay jël am cet coow li gën a wàcce doo dégg guddi fu avion bi ñëw ne day atterrir ba laal suuf coow di commencé waaye coow xajul fu asamaan nangul yàlla ak màggal yàlla teg ko fa xaj sallallahu alayhi wa sallam jóge juróom-ñaari asamaan juróom-ñaari asamaan di jël ànd moom mu yéeg ba ci fu ñuy wax sidratul muntaha yàlla su mag boo xam saraafal metal na taawu barab bi ak yéeme ak yéegam ak dex yi daw ci suuf yépp mu jóge foofu yéeg ba ci borom bi subhanahu wa taala dem ba ci mbir mag borom solkala toll ni ñaari boo jëlee pet ñaari pet yi takk buum bi day kubbe day lonk ni ñaari pet yi takk buum bi ni ñuy liggéey loolu mooy xus ni ñuy liggéey noonu la borom ne ñëw na ba liggéey ko noonu waaye gisul borom bi subhanahu wa taala ka mu gis kay gis seen muntaha mooy jibril alayhi salaam wala qad raahu nazlatan uxra yàlla mu ne gis na jibril képp si dem muntaha yàlla jibril yow saa tam gis na jibril ñu ko yàlla bindee nee na mi ngi am juróom benni téeméeri laa laa bu nekk mun naa xubri am moom jibril alayhi salaam foofu la fas gis ak jëmmam ak bu wàcce moom ci montagne boobu ci Makka jabalu rahma xunt ba mu duggoon di alxuraan wàcc foofa foofa yi ba mu génne ci xunt ba jibril woon ko mu xool mu gis jëmm ji mu fees horizon yëpp fu mu xool gis jëmm ji ñaari yoon la ko gis ma ne mu ne wala qad raahu nazlatan uxra gisaan na ko waneen yoon yi nga ci kër ci Muntaha ci sa Muntaha gisaan na ko ci jàng waaye sa la tam gisul ñaari solo jàng yàlla na ko waxal ko dem na ba jige borom bi su borom dem na ba jige borom mais toog na xaaba aw sayni aw adina wala mu ko gën a jige fa aw xaa ila abdihi ma aw xaa si borom wax ak jaamam bi dam ba xam mbokk yi bokk na ci ko yàlla jox ci wax joojee ci audience boobu bokk na ci mu ko jox xawaatim suuratul baqara mooy aaya yooyu mu ci suuratul baqara keroog la ko gis آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وصحبه waaye jox na ko jiit ñu ko saw xeet képp koo xam ne faas na te du bokkaale ak yàlla subhanahu wa taala mën naa ko bàyyi bakkaar waaye bokk na ko dox julli juróom julli juróom waxtu incha allahu taala dañu dañu wax mais rek ñu ñu daal di rek leeral ci julli boobu ko yàlla jox أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم bokk julli di kon ñu ngi wax yëpp bokk na ci la suñu borom wax ci sa sa ak lan ko jox mooy julli yi wan na ko def lu bari ci mboyaay wan nañ ko aljanna wan ko sawara wan ko kawsar def boobu nga xam ni yoon saa sa ko préparé di xam ni wurus ak jamaa lañ xoobe wet yi dégg ak suuf si nga xam ne moo nekk ci suufam lépp wurus la mu gis ci biir kawsar jax pale boo xam ne bu rafet lool pale wurus mu laaj ci biir ni ko lii yow la ko yàlla waajal yàlla war na ko sawar mu fekk fa ci wattu sawar mais Maalik yàlla ci biir nuyu ko mu fay ko waaye nee na réewul muñul ñu ko jibril kuy kii ñu ko kii mooy maalik mooy patron woo malaaka yi jàng sawar ñu ba ko yàlla bindee ba léegi ni mas ta mooñ mas ta ree dén ko yàlla bindee dana yàlla seen sawar yi moom yàlla ñu maalik ñu gis nga waa sawar ba ñu ba ñu defee sawar alxuraan yi nekk ni dañoo dëkk ci ñi waxtu sawar ni bu doon war a bokk ñu xam si ba naa yàlla dina la àggaat ñaan nañu si borom loolu ba ñu benn fan ci mbugal mi ñooñu ne leen xanaa ay yonent di ko leen woon ñu ne ah kay ñu ne ah kon boo ngeen demee ñaanal seen bopp yi ñu ñaan ñu diga fa dem seen patron Malick yaa Malick ku ñu yàq ñu xamee naa la Malick mu ne sa borom fàttu na ko borom xam-xam ne Malick toog na ñeent fukki at du leen a toog ñeent fukki at du leen a toog lu mu leen toog indi na ko naan fii ngeen di sax fii ngeen di sax yàlla yàlla mosal ci Malick yàlla war na loolu yéen suuf ak ay xeetu mbugal yu bari yoo xam ne lekkat yi baax yeeg njaalokat yeeg ak yu bare bare yi def lu bon waaye war ko intérêt aussi bokk nit ñi yàlla jox ko julli juróom mu bañ nekk ba toll nañ ci yàlla Moussa alayhi salaam comme ko fekkoon ci asamaan juróomeel bi juróom benneel mu ne ko lu la suñu borom wax lu mu la def lu baax jox mu julli julli waaw mu nekk juróom fukki julli mu ne ko loolu bari na demal nga ñaan ko mu woowee saw xeet ak mu la juróom fukki julli ba bis moo leen ko joxoon mu wàññi ko delluwaat ñaanaat si borom mu teggi ko fukki julli mu demaat ñaan ñu koy teggi ba des juróomi julli mu saa ñu ko àtte ndërëm ko dellu mu ne ko gis naa delluwaat sama borom ñu ma ne ginnaaw nit ki kaddu woo ko ñu ko ay Muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli yooyu di juróom danañ ci fay juróom fukk ñu ko def ñu ñu ko def ku julli juróom julli ñu fay juróom fukki yoon juróom fukki mu wàcc indil ñu mbokk yi sérité boobu di julli indil ñu sérité boobu di julli julli na mbokk yi liñ ci mën a tënk rek moom mooy wax nañ sànq ba ñuy tàmbali bi tax ñuy jiital période bi jiitu riñaan bi yàlla saa salaam dafa juddu lu borom wéeru rek yàlla bu wax wéeru bàyyi la tëpp ci waaye waajuram ko waajuram bu jigéen juróom-benn at lañ dund maamam bi juru bàyyam juróom-ñetti at lañ dund bàyyam bii ko doon aar di Abu Taalib bi di ko bi mu demee ba ñu yi nekk ci la ko ci yàlla jël jël ci xale yi amul benn wéeruwaay yàlla ñu ko kaay ma wan nga wéeruwaay yóbbu ko ci indi ko fa moom wan ko yoo xam ni ci màgg borom ak kàttanam mënatu la tiit leneen ci kaw mënatu la mënatu la tiit leneen ci kaw moo tax bi mu wàccee lu nekk ci barab koy mën a affronter koy mën a démarrer koy mën a dégg ndax la ko yàlla wax kon ndëgërlaay ak kàttan bi ko yàlla biiruwaay yi ko yàlla doon jox ginnaaw bi mu daanalee wéeruwaay yi doomu aadama yi wéeruwaay yi ci jox ko wéeruwaay yi yàlla subhanahu wa taala moo tax saa salaam mu ne lépp li def ci coono lépp ak li muy def ndax li def ci coono mu doon def lim ci ko tax moo tax dañ koo dégg ndax lan la ko yàlla wax waaye surtout nag la ko jox muy julli alquran wasta'iinu bi sabri wa salaa yeneen tamit ko julli ak muñ muñ ak julli jafe-jafe kiis mitit lu waay mën a am ñaari ngànnaay yi muñ ak julli muñ mooy lan fexe ba dëkk sa yëpp ci yàlla subhanahu wa taala mais ni dimbali ko julli muy connexion bu nga sa diggante borom nga xam ni fii yëpp mi ngi dox ngay am doole ak kàttan waaye bu dajee rek lépp jàpp la ni fii yëpp connexion sa diggante sa sa borom mi ngi dox dara du la mën a jël waaye phase bu dee dal daj loo jàkkaar mën a laa jël kon ngir waxtu wu xat xëy na bu yàlla def ba jotaay bi dugg na ci tulli ak ay importance am ak njëriñam ak itam nag li yàlla digle ak li muy apporter doomu aadama ci àdduna ak alaxira bi nag yàlla yàlla may dund ak fekke ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم ربنا ربنا اجعلنا مقيم الصلاه ومن ذرياتنا ربنا وتقبل الدعاء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قوموا الى صلاتكم الحمد لله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
duka da wani Allah
الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك صاغرا قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد
الله الله الله أكبر
الله الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله سمع الله
ربنا ولك الحمد
الله الله الله الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Amin, ya ta mu biya mu ne da ne da a sai ya bada mu wai ko kuma ne.
Thank you.